sëriñ Masamba Mbacke sëriñ Masamba Mbacke mi ngi feeñ jamono ci atum 1882 ci dëkk bu ñuy wax Pataar Pataar nag mi ngi ci suuf si nag di Kajoor ci wetu dëkk bii nag di Njaañ ci dëkk boobu nag la sëriñ Masamba Mbacke feeñee jamono ci atum 1882 mu dëppoog bisub alxemis ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weer wii nag di weeru Saxbaan ci atum 1299 ci gàddaay gi alxemis ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weer wii nag di weeru Saxbaan ci atum 1299 ci gàddaay gi dëppoog muy jeudi 14 juillet 1882 jeudi 14 juillet 1882 la cheikh Massamba Mbacke feeña jamono nag ci dëkk boobu nag di Patar di doomu Mamor Anta Sali Mbacke ak ku ñuy wax soxna Isa Diop ginnaaw bu mu feeñee jamono ci at moom di atum 1882 dafa tombee nag waajuram wa Mamor Anta Sali Mbacke nag génn àdduna ba tolloog juróom benn weer jàpp juróom ñaari weer magam ko baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul moo àndoon ak jàmbaaram ja nag sëriñ Daam Abdourahman Lo ngir ñu dem nag ci dëkk boobu nag di paataar wutali nag caatum Mamor Anta Sali Mbàkke mii nag aw tur ñu tudde ko nag sëriñ Masamba Bàcc Anta Ceebo ma Masamba Bàcc Anta Ceebo mii nag moo meññi waajuru soxna Isa Jóob mi meññi Cheikh Masamba Mbàkke kon Cheikh Masamba Mbàkke maamu waajuram lañ ko tuddee sëriñ sàmba Bàcc Anta Ceebo mii itam sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim tudde sëriñ Masamba Mbàkke ab sëriñub daara la itam nag ci daara jii nag di kokki jàngal na itam waajuru Seexul Xaddim wii di Mamor Anta Sali Mbàkke moom Cheikh Masamba Mbàkke nag am na ñu soxna bokkuñu nag kii di Maam Mor Anta Sali Mbàkke ñu ràññee nag ku ñuy wax Mor Isa Jóob ibnu soxna Isa Jóob ibnu Lat Joor Jóob ak ku ñuy wax sëriñ Xamsatu Loo ibnu soxna Isa Jóob ibnu sëriñ Daam Jabu ak ku ñuy wax sëriñ Ibrahima Loo ibnu soxna Isa Jóob ibnu sëriñ Daam Jabu Loo ak ku ñuy wax sëriñ Mor Isa Loo ibnu soxna Isa Jóob ibnu sëriñ Daam Jabu ak ku ñuy wax sëriñ Abdul Karim Loo soxna Isa Jóob ibnu sëriñ Daam Jabu Loo sëriñ Masamba Mbàkke juróom nag la bokkal waajur wu jigéen ak moom muy juróom benn waaye nag juróom ñi nag bokku ci kenn nag waajur wu góor góor muy Mor Issa Diop doomu Lat Dior Diop la sëriñ Hamsatu Lo doomu sëriñ Daam Jabu Lo la sëriñ Ibrahima Lo doomu sëriñ Daam Jabu Lo la sëriñ Modou Issa Lo doomu sëriñ Daam Jabu Lo la ak kii di sëriñ Abdou Karim loo doomu sëriñ Daam Jabu Lo la bi matee dal alxuraanul karim moom Cheikh Massamba Mbacke magam Xaadim Rasul moo ko dalal alxuraanul karim ginnaaw bi nag la ko jébbal sëriñ Ndaam Abdourahman Lo ci loxoy sëriñ Ndaam Abdourahman Lo nag la Cheikh Massamba Mbacke mokkale alxuraanul karim ginnaaw bu mu delloo ba mokkal nag bu bind itam nag lii di kaamil la ko magam nag sëriñ Tuubaa xaadim rasuul jébbal nag jeneen magam nag di maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ci loxoy maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru itam nag la dalee nag lii di xam-xam ginnaaw maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru magam ko baax ki sëriñ Tuubaa xaadim rasuul jébbalaatoon na ko nag kii di sëriñ Mbàkke Buso ngir itam nag mu jàngalaat ko nag lii di xam-xam ba tax na nag kii di sëriñ Masamba Mbàkke nekkoon na nag ku géeju nag ci wàllu xam-xam bi sëriñ Tuubaa Seexul Xaadim nag di dem ci géej gi sëriñ maam Thierno Ibrahima Faty Mbacke ndaamal daaru ci Ibrahima Faty Mbacke ndaamal daaru itam nag la nekk ba ni Serigne Touba Seexul Xadim jógee ci géej gi ci atum 1902 ginnaaw bu Serigne Touba Seexul Xadim jógee ci géej gi diir bu néew itam nag la fi def damaatim nag ci réew mi nag di gànnaar bi Serigne Touba Seexul Xadim nag di doog a dem gànnaar ci di Serigne Massamba Mbacke nag fekk jiwu ko nag gànnaar waaye nag ba fa magam ku baax ki Serigne Touba Xaadim Rasul defee ab diir la woolu woon nag lenn itam nag ci njabootam ñoo man cee ràññee Cheikh Massamba Mbacke Cheikh Mamadou ma roqee buso cheikh mamadul faadal mbàkke ak ñeneen nag ci tuut tànk nag yi fi nekkoon nag ci jamono jooju ñu fekk si ko nag ci réew moomu nag di gànnaar ginnaaw bu ñu ñëwee gànnaar nag sëriñ tuubaa xaadim rasuul boole woon na leen nag lenn nag ci naar yi am ay xam-xam nag ci réew moomu ngir nag tuut tànk yi nekk ak moom man a géeju nag ci wàllu xam-xamu araab ba tax na nag kii di sëriñ Masamba Mbàkke jàngoon nay itam nag ci naar yooyu ci wàllu xam ci réew moomu nag di gànnaar mu wéy nag nekk magam nag ci gànnaar ba fa sëriñ tubaa seexul xaadim bàyyi jolof googu itam nag kii di sëriñ Masamba Mbàkke nekkoon na faak nag magam ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ci yéen jolof googu itam nag la jotee ngërëm ci yéen jolof googu itam nag la nekke am murit ndax dafa am bis ci yéen jolof ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul dajale woon leen moom sëriñ Masamba Mbàkke Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke ak kii di sëriñ Mor Rokhaya Bousso di leen xamal ne awma rakk Cheikh Masamba Mbàkke mooy ki ko moom awma doom Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke ak Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke ñoo ko moom awma jarbaat sëriñ Mor Rokhaya Bousso mooy ki ko moom ba tax na nag li fi nekk liggéey rek mooy li ko maye ku ci bëgg a am nag da ngay nangoo def nag li ñëpp def muy jaayante ci jataay nag la ñeent ñi kenn ku ne jaayante ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul nekk itam nag murit bu dëggal nag ci ginnaaw ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul te yéen jolof googu itam nag lañ muritoo te yéen jolof googu itam nag la Cheikh Massamba Mbàkke jote ngërëmam te yéen jolof googu itam nag la ko Seexul Xaadim sampale kër boole ko ku ñuy wax soxna May Jaxate taawub sëriñ Massamba Mbàkke bii di sëriñ Moodu May soxna May Jaxate moomu mooy ki ko meññi mu wéy nag des ca yéen nag ci loxoy magam nag xaadim rasul ba ni sëriñ Tuubaa xaadim rasul jógee ca yéen nag ci atum 1912 ñëw nag ci dëkk bii nag di njaareem njaareem itim sëriñ Masamba Mbàkke àndoon na fa ak magam ku baax ki sëriñ Tuubaa xaadim rasul ci atum 1912 ca 1913 ba nag sëriñ Tuubaa xaadim rasul nag dajale waatoon na leen itim ci njabootam yebal leen itim nag ñu ñëw ci dëkk bu sell bii nag di Tuubaa sëriñ Masamba Mbàkke itim nag ci la bokkoon nag ci ñim yabaloon nag ci dëkk bu sell di Tuubaa bi sëriñ Masamba Mbàkke ñëwee nag la dëkkee nag ci quartier bii moo tolloo na kër sëriñ Mouhamadan Jobbe ba ci kër Alaaji Baara gi jàppitim kër sëriñ Modou loo Ngaabu gi ba tax na nag néeg bi mu dëkkee woon ci kër gi moo tolloo kër doomam ji nag di kër ab du Baaxe Mbàkke ba nëga ni sax soo demee ci kër ab du Baaxe Mbàkke daa gis néeg Seex Masamba Mbàkke ba mu wéy nag des nag Tuubaa ci ndigalul magam ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul di liggéeyal ko baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ci wàllu nag bindaat xasiday Seexul Xadiim yi ak lépp loo xam ne nii nag aju na nag ab defaraat itim nag ci xasida yi loolu itim nag magam nag sëriñ Tuubaa Seexul Xaadim rakkam ji nag di sëriñ Masamba Mbàkke nag la ko féetale woon ba tax na itam nag siiw na lool Seex Bamba moo bind waaye Seex Masamba moo maasa ci nag jàpp 1914 ginnaaw bi sëriñ Tuubaa Seexul Xaadim dajalee mag ñi di wax itam mag ñi nag ñu dem sanc ay dëkk Seex Masamba Mbàkke itam nag ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaadim itam joxoon na ko ndigal ngir itam nag mu dem sanc ab dëkk sëriñ Masamba Mbàkke nag sanc na dëkk bu ñuy wax Daarul Karim ginnaaw bu mu sancee dëkk boobu nag di Daarul Karim taalibeem nag bu dëggal ba di sëriñ Daam Bale Loo nag la ko joxoon ba tax nag sëriñ daam bale loo itam moo féete woon dëkk boobu nag di daarul karim nekkal fa nag cheikh masamba mbàkke dëkk boobu itam nag ginnaaw ba mu ko sancee nag ci atum 1913 jàpp 1914 xaritam ba di sëriñ abdul karim Touré ànd ak nag baneen xaritam ba di sëriñ mouhamadou jaw paxa ñëwoon nañ nag ci dëkk boobu nag di daarul karim nag ngir seet si nag sancub sëriñ masamba mbàkke bi ba tax na itam nag kii di sëriñ abdul karim Touré nekkoon wóola réew cheikh masamba mbàkke bindoon na itam nag xasida gu yaatoo yaatu ci dëkk boobu nag di daarul karim di ca ndokkale nag kii di cheikh masamba mbàkke di ko itam nag ci dëkk boobu nag di daarul karim ndax suñ boroom defal ko ca xéewal ba tax na sax wax nañ ne diggante sëriñ Masamba Mbàkke ak sëriñ Abdul Karim Touré jaxasoo bu yaatoo yaatoo yaatu la woon ba tax na sax dëkk boobu nag di daarul karim ginnaaw daaru ji karim ji sëriñ Abdul Karim Touré la ñu teewlu xasida gi ci sëriñ Abdul Karim Touré defoon ngir nag di ndokkale Cheikh Masamba Mbàkke ci dëkkam boobu mu sanc di daarul karim daarul karimi lakrami daarul munaawal karami xusisa fil muarami binaa haasowal karami alhamdulillahi alkarim hamdan ala haadi alkarim baana lana daarul الكريم مثلا بنا المحترم ربي بأحمد القديم عليه رضوان القديم فجد له بما يديم سكور أو نعم أسأل ربي المعين بأن يشافي اللعين وأن يعيب المستعين به بجلب نهم لمن أتاه داره من فقره أجاره وقلبه أناره وفارك المعلم كمله المكمل أوسله المسمل ومن له يا أمل طلبت صابي كلمي رقاه لقدره ومتقلا في شبره لطفا بأهل أسره نصير كل مجرم يا خير من يرى القيوب علمه جملة العيوب والتمه جملة jumlatal quyub an ahlihi aram rami alimu jumlatal quyub wal tamhu jumlatal uyub an ahlihi aram rami maaral wara bi daarihi sahru rabbihi rabbihi kadahbihi wa xasbihi uyuru wa atimi urid qanaka ya karim fi daarihi daarul karim bi an hunu laysa karim ujuru wa hatimi wafatu ubbuka sinin faltak fi kaydal xaaimin ani musasi alin mbakir mufaimi waqisu min kulli lahim waxlisu min kulli shayin is qalbu qalbu salim waqay soo takk sumi waxfir sunuba ahlihi waxbal jamia ahlihi waqut simaami xayli ila liwaasil karami rabbi yaqultu rabbana يا خالق المسنبنا فقل له يا ابن عبد الكريم الكرم مالك يمينه بلا كد منافعا ولا فين يصوبه بلا يا فالبقى وقدني وصليا وسلما وبركا وكرما على ابي بسما في سما باسمي وخدمي ginnaaw daarul karim nag mu wéy nag nekk nag ci ginnaaw magam di sëriñ Tuuba xaadim rasul wéy itam nag nekk nag ci dëkk bu sell bii nag di Tuuba ci ndigal nag lu ko fi xaadim rasul joxoon ba tax na nag Cheikh Massamba Mbàkke itam nag bind na ay xasida ñu man cee ràññee bu ñuy wax Muwahibul Xaadim man cee ràññee itam xasida gu ñuy wax Ahmadu Bamba Moodu Bamba ak yeneen ak yeneen i xasida ak i way nag yu mbind moom doomu Mamor Anta Sali Mbàkke bi mu nekk ku kiimaane moom doomu Mamor Anta Mbàkke bi nekk ku nangoo liggéey nekk nag ku pës ku yëmale wut ak magam ak dara ba tax na nag ku baax ki Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul nag bindoon na ko ab lettre di ko ca ñaax ak itam nag di ko ca sant soo delloo nag ci lettre bi ko Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul bind di magam ma ngi ko cay dénk nag dénkaane bu am solo di ko wax ne nag Seex Masàmba Mbàkke del ànd ak koo xam ne nii nag sàgganut del moytu nekku ci naaf guddi itam nag fonk ko ndax itam aaday nit ku baax la te itam nag lu baax nag ku ko def itam nag am lu baax képp ku lay woo itam bala nga ko wujji xoolal bu baax a baax nag ci lan la lay woo ba xam nag njariñul suñ boroom ma nga ca waaw wala déeta yow Seex Masàmba nag képp ku la woo ci aw yiw na nga ko wujji képp koo xam ne nii nag lam lay woo aw yiw nekku ca na nga ko lu lettre bii nag wala ndénkaane bii nag la ko Seexul Xadiim defoon ñu teewlu ko laasil muqaalatata man استطعت من قيام الليل فإنه عادة أهل النيل وحيثما دعاك داع فانفر قبل الإجابة تفوز بالنظر أجب لداعي الخير وتركا سواه ولا تمل لمن يميل لهواه وانصح لكل من رأيت بعدا تراعي سرعا بقلب اطمئنان وتب متابا صادقا للهادي في السر والعلن sa jittihaadi ginnaaw lettre boobu nag Serigne Touba Seexul Xadim bindoon rakkam Serigne Massamba Mbacke Serigne Massamba Mbacke nag wéy nag nekk nag ci dëkk bii nag di Touba ànd ak nag ay rakkam ak ay taalibeem di liggéey lu ñu bàyyi nag yit ku baax ki sëriñ Tuubaa xaadim rasuul mu féete itam nag seexul xaadim nag ci wàllu bind ak maasa taqoo gi ak magam ba tax na itam nag bari na lool nag ci mbindum sëriñ Tuubaa xaadim rasuul seex Masàmba Mbàkke nag moo ci jotale nit ñi mu nekkoon itam ku am pësteef moom seex Masàmba Mbàkke mu nekk itam nag ku daa toggi joxe ba tax na itam nag siiw na lool ci yoonu murit ñu daa wax añkati sëriñ Masàmba Mbàkke ba tey itam nag ci liggéeyub sëriñ Masàmba Mbàkke kuréelu mawlid yi itam siiw lool ci yoonu murit ci kuréelu mawlid yi seeni air la ñuy jàng ci kuréelu mawlid googu nag waroon Cheikh Massamba Mbacke ñu man caa ràññee ku ñuy wax sëriñ Ibrahima Fall Buuba sëriñ Mayib Guèye sëriñ El Hadji Seck sëriñ Ali Silla ak sëriñ Modou Kan Ja ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne nii itam nag ay jàngkati xasida lañ nag yu mag a mag a mag te waroon Cheikh Massamba Mbacke ba tax na itam nag lii di gàmmu seenum njàng moo fa daa jolli maas googu itam mu doon maas xasida yi ci ndigalul ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul kuréelu mawlid yooyu mu taxawaloon moom Cheikh Massamba Mbacke ci ndigalul magam Xaadim Rasuul loolu itam nag taxoon nag Serigne Touba Xaadim Rasool nag bindoon ab lettre nag Cheikh Massamba Mbacke di ko xamal nag lan moo tax nag mu di ko binduloo ak di ko maasloo Serigne Touba nag Cheikhul Xaadim nag ma ngi wax ne nag ma jàmbat di nag na ñuy bind loolu itam nag moom moo tax nag ma dénk ba tey ca mbind ma Serigne Touba nag ma lim ma liggéeyal kenn musuma koo liggéeyal loolu nag moom moo tax nag ma jagleel ko nag li ko jagleel Serigne Touba Cheikhul Xaadim ba tey nag mi ngi wax nag ci biir lettre bi di wax ne nag képp koo xam ne nii nag xool nga ma ci sëriñ Masamba dang ma mere ndax sëriñ Masamba Mbàkke nag amul jenn yitte nag judul sama jos ñu teewlu lettre bi sëriñ Touba Seexul Xadim bindoon Seex Masamba Mbàkke di ko ca ñaax xaawa Seex Akbar Xadim Rasul ridwanullah alayhi sina qasaidi tasku ilaya ala yaxutaha xayru Masamba fa awdatuha lahu وقال أيضا خدمني مسامب خدمة لم يخدمها لي أحد فخصصته ما لم أخصصه لأحد وقال أيضا فكل من نظرني في مسامب سوف يخدمني ثم قال لا لمسامب himmatin siwa himmati fa kullu man nazarani fi masamba sawfa yaxdumuni suma qaala laa li masamba himmatun siwa himmati mu wéy nag nekk nag ci dëkk bu sell bi nag di Touba ci ndigalul ku baax ki Serigne Touba Xaadim Rasoul ba ni Serigne Touba Xaadim Rasoul génnee àdduna nag ci atum 1927 mu fab léppam nag jébbal doomu Cheikhul Xaadim ba di Cheikh Mamadul Moustapha Mbacke nekk itam nag ku sës rëkk nag ci ginnaaw Cheikh Mamadul Moustapha Mbacke def ko doom def ko Serigne ba tax na Samba Mbacke jàppale na ci Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke ñu mën cee ràññee nag bi ñuy teqeeru jumaa ji Serigne Massamba Mbacke fekkee na ko tax na Serigne Massamba Mbacke saa bu masaa xëy nag daana ñëw nag ci jumaa ji ba tax na Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke mi ngi ko doon wax ne Baye Massamba saa boo xëyee nag ñëw ci jumaa ji yow la ñuy xoole suñu waajur wa Xaadim Rasuul ndax yaa suñu waajur taxoon na nag Serigne Massamba Mbacke saa su ne nag daana xëy nag yendu itam nag ci jumaa ji ba tey ci digganteem ak Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke ñaar fukki fan ci weer wi nag di weeru Muharram bi ko Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke di woote ci atu atum 1936 cheikh Massamba Mbacke nag la ci njëkk a waxtaanal lépp lu cheikh Modou Moustapha Mbacke daa def itam daana ci waxtaan ak waajuróom wi nag di cheikh Massamba Mbacke ba tey itam ci digganteem ak cheikh Mamadou Moustapha Mbacke bari na itam nag ci ay doomam cheikh Mamadou Moustapha Mbacke moo leen yar ba tey ci digganteem ak cheikh Mamadou Moustapha Mbacke keroog bi muy génn àdduna ci atum 1942 mook cheikh Mamadou Moustapha Mbacke tëju nañ nag lu man ñeenti fan ci dëkk bee nag di taayifa loola itam nag tax na bi mu génnee àdduna cheikh Mamadou Moustapha Mbacke itam seedeel na ko lu am solo Baye Massamba mooy gor ndax lii ko dal man mii la waroon a dal waaye gore rek moom moo tax nag lii dal ko ci xilaaf ak Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke nag la génnee àdduna ci atum 1942 Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke itam nag moo ko taxawu moo ko jullee moo ko jébbal boroomam ci armeer yu mag yi ginnaaw taxaw googu mu taxaw woon ak doomam Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke moom Serigne Massamba Mbacke ko amoon ak jaxasoo la ak kii di Serigne Mouhamadou Diaw Paxa ginnaaw buñ sancee daarul Karim googu Serigne Mouhamadou Diaw Paxa Daarul Karim ginnaaw bu Cheikh Massamba Mbacke génnee àdduna itam ci atum kii di Serigne Mouhamadou Diaw Paxa defal nag Cheikh Massamba Mbacke am marsiya soo delloo nag ci marsiya bi Serigne Mouhamadou Diaw Paxa nag defal Cheikh Massamba Mbacke ma ngay wax ne nag sang bi wéy na sang bi nga xam ne nii nag moom moo nekkoon sangub joxe waa kon yi mu ne sang boobu nag wéy na ci ndigalul suñu boroom mu ne nag ci ndigalul yàlla mi nga xam ne moom mooy aji mat ji moom moo k jël mu ne nag suñu boroom nag moo koy teeroo nag a nag sang bu mat la woon sang la boo xam ne itam nag sang la bu mënoon a joxe joxe itam nag da koo dëkkoo woon ñu teewlu marché bi sëriñ Mouhamadou Diaw Paxa defoon nag ci Cheikh Massamba Mbacke ginnaaw bu mu ñu dëddoo mada sayyidal mihsaadu lil jannati allati tawattanaha abraaru maxzi tafadduli wal kaamilul mikraamu su taqaddumu saxi huwa alfaadilul mi'taahu amral mufaddili huwa alkayisul mi'waanu xawsu samaanihi aman bi samba cheikhi musammal musallali alayhi ridal baaqi bi kulli mukammilin kulla daifin muslimin mudallali bijaahi nabi almustafa gayri almursali maa al aali wal asxaabi bishri almuammili alayhi salaama gayru muxnin wa mursali bitibaahi mordil maadi mudallali ba tey nag ci digganteem ak sëriñ Mor Sey Lampum Njàmbur xaritam la woon wóllëreem la woon ñaari doomam yi nag biñ matee jàng Cheikh Massamba Mbàkke nag sëriñ Mor Sey nag Lampum Njàmbur nag la leen jébbaloon muy sëriñ Mouhamadan Jobbe Mbàkke ak kii nag di sëriñ Moodu Faati Xari Mbàkke làmpum njàmbur ba mokkal alxuraanul karim ba tàmbalee bindantu nag ay way sëriñ Mor Sey nag fa baatoon na waye nag bindub lettre nag Cheikh Massamba Mbacke di ko wax ne nag Mouhamadan Mbacke mi ma joxoon jàng na alxuraanul karim nag ba tàmbalee bindi way way yii ma la jox nag moom mooy ki ko bind Cheikh Massamba Mbacke nag bindaatoon na baneen lettre nag sëriñ Mor Sey làmpum njàmbur di ko wax ne nag gis naa way yi sëriñ Mouhamadan bind waaye nag maa ngi lay sàkku na nga waxal ma Mouhamadan mu gën a góor-góorlu nag ci njàng mi kontaan naa ci nag lool nag waaye nag lettre bii ma la bind nag joxal ma ko Mouhamadan waraloon ma nag sama yenn taalibe nag yu nekk foofu nag ci tunduwu njàmbur woow ñu teewlu nag lettre bi Cheikh Massamba Mbacke bindaatoon Serigne Mor Sey lampum njàmbur ginnaaw nag bu ko Serigne Mor Sey nag joxee nag way yoo xam ne Serigne Mouhamadan Jobbe nag moo ko tàmbalee woon nag di wayantu te Serigne Mor Sey nag doon ko seedeel Cheikh Massamba Mbacke miy waajuram te Cheikh Massamba Mbacke nag kontaanoon ca waye nag ginnaaw bi nag bindaatoon na lettre nag di ci sant Serigne Mor Sey di wax nag Serigne Mouhamadan Jobbe nag ngir mu gën a góorgóorlu nag ci lool muy def ci biir lettre ba ma ngi ko cay jox lettre ba nag Serigne Mouhamadan teewlu ko fay la cheikh muhib al mahmud mamasay waqa wallahu sharra kulli shay salaamun yuallimuka bi anni uhibbu an tuballigha hadha ila jami' talamis fi njamburi fattahid fi hadha ghayatan wa nihaya wa qul li mahmudan falyanqul kasiran min an-nuskhati li jami' man hunalika wa ra'aytu maktubaka al-mustahsan al-ajib ash-sha'ni al-hamina wa bushirta bi kulli khairin amin wa balligh salami ila al-ibni ghayat as-salam layqun wa qul lahu ra'aytu abyatahu al-hasanata al-mus مستفصلا فليجتهد في نحو هذا الأمر كل وقت وحين وقل له إن أصلح ذلك صلح الأمر nag ci jàmbaar yi toppoon ku baax ki Serigne Touba Xaadim Rasuul nekkoon itam wólla réew Cheikh Massamba Mbacke ginnaaw bu ñu Cheikh Massamba Mbacke dëddoo nag ci atu 1942 defaloon na ma Massamba Mbacke nag am marsiya soo delloo nag ci marsiya bi Serigne Abdou Karim Touré nag defal Cheikh ma Mbacke est-ce que nit ki nag dana am njariñ nag muy jàmbat ci loo xam ne nag yàlla da koo dogal mu ne ndax jooy nag dana jariñ loo xam ne nii nag yàlla dogal na ko ba noppi ma ngay wax nag ci biir way wa nag Seex Masamba Mbàkke nag jóge gém fi jóge penku ak soow saalum ak gànnaar ba ci sax fu gën a kawe penk bi ak soowu beeg saalum ak gànnaar ñëpp itam nag yëg nañ nag demuk Seex sàmba Mbàkke ma ngay wax ne itam nag suuf jooy na ko junne itam nag jooy na ko lépp lu yàlla bind itam nag jooy na Seex sàmba Mbàkke marché boobu nag la sëriñ Abdou Karim Touré nag defoon nag ginnaaw làquk Seex Masamba Mbàkke di jooy Seex Masamba Mbàkke ñu teewlu ko hal yanfau lmara iksaaru الماء ينفع الباكي إذا وردت كمن من الله خهار البريات لا لا على سبي لكن إذا سقطت مقمعة ساحي زاد أبو الخليقات وشان شيخ مسنبل يوم قد فجأ سرب البرايا وذا جم المصيبات ما جل ولا سأله شرقا وغربا إلى أقصى البلاد إلى أقصى الحجازات فالأرض أحكاما فيها وأبكى الذي يمشي عليها إله الجن والنات رب السماوات والأرضين منفردا abkal aradina turran kasmawat sëriñ Moussa Ka dafal na ko itam nag am marsiya bu yaatoo yaatu boole kook rakkam ja sëriñ Hamsatu Lo soo delloo nag ci marsiya bi sëriñ Moussa Ka defal kii di sëriñ Masamba Mbàkke boole kook rakkam nag sëriñ Hamsatu Lo mag ñuy wax nag jikkoy ñaari doomu soxna Isa Jóob yi dañuy wax itam nag seen melokaan ak ñoom ñaar nag ni kenn ku ne kiimaanee mu ñuy wax ne nag bu sëriñ Masamba Mbàkke yoree baatin bi sëriñ Hamsatu Lo nag moo yor zaayir bi 1942 boole kook rakkam nag sëriñ Xamsatu Lo ma dellu wax la ci sëriñ Masamba xar baax yi rey fàttale Cheikh Bamba defar la wax xar baax Cheikh Xamsatu Lo rakkam ju baax ja moo si gal kër Siré Lo ku deeti ñaaru doomu soxna Isa Jeey ma jooy sëriñ Xamsatu Lo moo mata jooy doon naa ko jéem a jooy ca ama dan sa si ci fel ga far ma wopp maa ngi las lasi ndekete moom magam ji laa di boole marsiyaal yéen yi yaarigat laay xoole tey gumbalaa saa yaarigat wan nen Makka xaw ma ku may rayet ngir joon Mbàkke sëriñ Masamba may xamal Cheikh Bamba Cheikh Hamsato ma daa daggal yoon nen ba sëriñ Masamba daa bindal Cheikh Bamba Cheikh Hamsato nu daa taril mawlid ba sëriñ Masambay saaxibul kamali Cheikh Hamsato di saaxibul jamali sëriñ Masambay saaxibul inaaya Cheikh Hamsato di saaxibul wilaaya sëriñ Masambay saaxibul diraaya Cheikh Hamsato di saaxibul riwaaya sëriñ Masamba di borom maqaama Cheikh Hamsato defoon borom karaama sëriñ Masamba doon bigum jiilaani Cheikh Hamsato fa daa bégal tiijaani sëriñ Masamba daa bégal biidaani Cheikh Hamsato daa jaxasoog soodaani sëriñ Masamba bay fanaan diiwaa Sani Cheikh Hamsatou nga jëppee ba góor yey naani sëriñ Masamba suy faleeka folli Cheikh Hamsatou rakkamte mooy sul fadli sëriñ Masambay saahibul wusuli Cheikh Hamsatou soppan dunay rasuli sëriñ Masambay xaadimul xadiimi Cheikh Hamsatou saadiq te far di doomi sëriñ Masamba topp doomi jaara Cheikh Hamsatou nga jébbaloo fa jaara sëriñ Masamba tërbiya fa Bamba Cheikh Hamsatou nga tërbiya fa Lamba ginnaaw marché boobu ko Cheikh Moussa Ka defal Cheikh Ibrahima Diop almashari bokk itam ci jàmbaar yi ko baax wax nag jikkooy Cheikh Massamba Mbacke ak melokaanu Cheikh Massamba Mbacke mag ñuy wax nag na Cheikh Massamba Mbacke ku kawe nag ay ngëneel la ku tabe itim la ku tedd la nit la koo xam ne itim nag ku bari xam la ku yeewu muus la mën nañ koo jàppe itim nag aw weer ndax nag li weer nag di jariñ ci leeraay nag Cheikh Massamba itim nag noonu la mel képp kuy mu itim sooy rey mën ngaa roy ci ma Massamba Mbacke soo delloo itim nag ci biir wayi mu ne ma Massamba Mbacke nag bu ko doon jàppe ko am ayib ñaari ayib rek la am muy ragal yàlla ak liggéeyal sëriñ bi liggéey boo xam ne nag du ci ñaxtu du ci seel itim nag ku sell itim nag ab xol la ñu teewlu nag wayu sëriñ Ibrahima Diop almasari yu nag defoor nag ci rakki ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasul di Cheikh Massamba Mbàkke faaxal afaadila ahlal joodi wal karami Massamba Mbàkke kasiiral ilmi wal xikami fatan fatinun labibun aasiqun yaxzun nadbun xarisun ala taaati wal xidami badrun munirun jawaadun faayiqun alamun qudwatu kulli muridin saariqil fahimi in kaan asqara al ixwaani xadima maan fa inna himmatuhu min akbar al ximami laa ayba fii siwa taqwa al ilahi wa ix taami alxadimi bila maylin wala saami rahibu sadrin zalimi alqalbi min danasin shamsun min alxaqat tuja zulami dikru nuhaymin fi alawqaati daydanhu wa shukru aadatuhu fi alfiili walkalimi akram bihi min tawili alxadimi rubatuhu bada alxadimi taala tanzi walkarami lawla alxadimi imam alasri xudwatuna lakaan afdala ali alasri kullihim li kulli fardin min ashyaq man qabatun wa sabqahu kulla baadin gayru mundahimi sëriñ Moulaye Bousso di doomu sëriñ Mbàkke Bousso moom itam nag def na ay seede nag ci Cheikh Massamba Mbacke soo delloo nag ci mbindum Serigne Moulay Bousso ci seede yim def nag ci Cheikh Massamba Mbacke mi ngi wax ne nag moom am na yaqin nag ci doomu Mamor Anta Sali bi na boroomi kiimaan la mu ne Cheikh Massamba nag ku dëdd woon àdduna la boole koog nag bari ay may mu ne toroxlu googu nag mu defoon moom Cheikh Massamba Mbacke teewul nag ay may nag la amoon nag ci suñu boroom mu ne ma Massamba nag notoon na bakkanam ba fu ko neex nag la daa jëmale bakkanam la boroom jikko la itam nag joo xam ne nii nag jikko ju la yore tabeeg Cheikh daal nag ci ab taw ndax xàmmeewul fu muy taw ak fu mu du taw bu xiinee daal fépp lay sotti lu yaatoo yaatu daal la Cheikh Moulay Bousso def ci tabuk Cheikh Massamba Mbacke ak jikkoy Cheikh Massamba Mbacke ngir mbindee fi nag man cee roy ñu teewlu ko shahidtuloo karamaati yaqima bi xasal al muraadu ma al maraami danaa li tawaadoi wa ala li majdin sansa nadbu munxafadin wa saami wa jahada nafsuhu wa nafa marida bi suhdin fi dunya wa hawaawu xaami salimul qalbi suu xuliqin azimin samuuxul kaffi kami daraari haami masoonil faahi da شابا عن فضول مجانب ما يجر إلى الملام صفوح ناصح غيث جواد يجود بما لديه مع احترام مطيع مخلص لله بر تقي طاهر من كل دام تليد مجد تليد سيادة وطريف مجد بسودره عزامي فسامي مقالي عن مناقبه قصير وعن إحسائها أنهي الكلام جزاؤه عن جميل غدا خيورا إلى السلحات عن دار السلام ci digganteem ak rakkam nag Serigne Hamsatou Lo Serigne Hamsatou Lo nag yëkkatoon na ay àddiya magam sëriñ Masamba Mbàkke ci lu tolloog téeméeri dërëm nag ak juróom fukk ginnaaw bu mu ko jébbalee magam Cheikh Masamba Mbàkke Cheikh Masamba Mbàkke nag bindaatoon na ab lettre nag rakkam jooju nag ne nag àddiya ma joxoon mu tolloon nag ci téeméeri dërëm ak juróom fukk nag jot naa ci maa ngi lay ñaanal nag suñ borom fay la te dooli la yiw te defal la itim nag barke ginnaaw nag boo jotee sama lettre nag maa ngi lay yëgal ne bu subaa nag ci àjjuma ji na nga ànd ak nag góor yàlla yi nekk foofu nag ñu ñëw nag defaral ma nag kërug Tuubaa gi ndax damaa am kat ñaari a ne ajjuma bii ñu jëm muy gouverneur bu ndar ak gouverneur bu ndakaaru yow nag maa ngi lay digal nag bu ajjumaa nag ci fajar laataa jant bi fenk nag na nga ñëw soo ñëwee nag nga nag képp nag ku aju ci man te sooy ñëw nag nga fas yi mbaam yi ak lépp nag lu aju nag ci wàllu jur nag gu nekk foofu ci gàttal daal ndaw loolu nag di indi lettre bi su ñëwee daal lépp lum la wax daal maa ko wax ñu teewlu nag lettre bi sëriñ Masamba Mbàkke bindoon rakkam nag sëriñ Xamsatu Lo di ko wax ne nag ajjuma nag na ko fekk Tuubaa ndax gouverneur bu ndar ak gouverneur bu ndakaaru dañ koy waaja a gane si asalaamaaleykum الله وبركاته لمن كاتم هذه الحروف أكانة الله من باب البر والمعروف أنفع التحيات والإكرام مع الأعلام باني رأيت المئة وعشرين درهما منك فجزيت وكفيت وبورك فيك وزادك سيادة خير ورزق ثم بعد ذلك فأرسل إلى غدا وقت وقت الضحى مئة وخمسين رجلا لأصلاح ما كان هنا من الخرية لإتيان الأميرين من كان في دكار ومن كان في ندر في توبة يوم الجمعة وأمرتك بالإتيان ليلة الجمعة والصبح قبل طلوع الشمس مع جميع ومن تعلق بها هنالك مع جميع الخيور والجمال والحمر فبقية الكلام على لسان حامل والشيخ مسمى بكي بن محمد حبيب الله عصمه الله ووالله وتوالله فإلى أخ المريد المردي عنه حمزة loo mabon lettre boobu nag mooy lettre bi Cheikh Massamba Mbacke bindoon sëriñ Hamsatu Lo naar bu ñuy wax maylut nekkoon itam nag naarub gànnaar mas na gane si nag kii di Cheikh Massamba Mbacke ginnaaw bu mu nuyoo Cheikh Massamba Mbacke wax na nag yow doomu abibullahi bi dénk naa la sama bopp te ëllëgitim nag maa ngi lay yaakaar masamba yaa mitlal habiballahi arjo zahaba fi gadin wallahi wa ajaabo saadul xalqi marjawuna cheikh masamba mbàkke ailan sëriñ masamba mbàkke nag kero mi ngi tontu naar boobu nag di mawlud di ko wax nag yow mawlud yow mi doomi xaamet maa ngi sant yàlla nag mi aji tedd yàlla na la yàlla fay nag ci li nga wax may lut man xaamidin wallahi fal taskuril karima bittahan laahi jasaaka rabbuka an almanaahi xayral jasaay foqata am malaahi may luuti tim nag tontuwaat na Cheikh Massamba Mbacke di ko wax na yow mii doomu Abibullah yow yaay sama sang yow yaay sama yaakaar ci bépp waxtu nag wu mën am nag yaa fay sama yaakaar Massamba naj lal habibillah ya sayyidi anta al muammali andi kullama xiini bika stajartu min al aswaai xaatibatan min charri nafsi wa min charri shayatin Cheikh Massamba Mbacke itam nag tontuwaat na nag may luut moomu ñu teewlu ko wajabahu shaahibu rawdati warida naziman anta al habibu allazi min ajli hadratihi ansa sawaxiqa am si ahayini kàdduy jokkalante yooyu nag ngeen doon déglu mooy diggante Mawlut ak kii di Cheikh Massamba Mbacke Maylut nag naarub gànnaar la woon bu gane si woon Cheikh Massamba Mbacke ginnaaw bu mu ñëwee nag defoon na ay way moog Cheikh Massamba Mbacke su waxee ma Massamba Mbacke tontu ko mooy lool ngeen doon déglu Serigne Massamba Mbacke nag ku ragaloon yàlla la ku daa jaamu itam nag suñu boroom la ba tax na nag mbooloo mi ko yaakaaroon nag ngir Serigne Touba Xaadim Rasul mas na leen a dénk nag di leen wax ne koo xam ne nii nag bëgg ngaa jariñu na la leer daal njariñ ñi mang ca njariñu njariñ nag mi ngi juddoo nag ci màggal loo war a màggal la nga war a màggal nag na ko màggalee itam nag noona nga cey ameew yiw sëñ Masamba nag ba tey mi ngi wax ne jëf yi mi ngi ci yéene yi képp koo xam ne ni yéene na aw yiw aw yiw rek lay am képp koo xam ne ni aw ay dong nag lay yéene aw ay dong nag lay am ku yéenewul dara nag munta am dara ñu teewlu ndénkaane bi Seex ma Masamba Mbàkke defoon nag ci mbooloo mi toppoon ci ginnaawam ngir xaadim rasul alamu an alfawaid fi alaqaidi fala yantafiu man la yactaqidu li anna al intifaa yatawalladu min altazimi ala miqdaari tazimi العبد يقصد انتفاعه إما ظاهرا أو باطنا أو كليهما مع ما يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى من نوى الخير فله الخير ومن نوى الشر له الشر من لم ينوي شيئا فلا له ولا عليه من أراد جلب كل ما يجب فليمتثل لأوامر الله لأنها تحت مسرات كلها إلى الجنة التي وعد المتقون فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره في الدنيا والآخرة ما لم يرتد من أراد ضعف كل ما يقع فليجتنب مناسك hiya llaahi jalili li annaha taxta madarra kulliha ila annaar lati waquuduha annaasu walxijaara faman yaxmal misqaala daratin xayran yarah fi dunya wal axira ma lam yatub ba tey nag ci ndénkaane bu Cheikh Massamba Mbacke defaatoon ma ngay wax ne nag ñaaw jikko nag bari na jaamu yàlla gu mu yàq rafet jikko nag day texeloo boroom day itam nag dana defar lu bare bare bare bare bare ci dunduk doomu aadama bi ñu teewlu ndénkaane bi Cheikh Massamba Mbacke defaatoon nag ngir mbokk taalibe yi sayyul xuluqi rubbama afsada kasiran min al ibaadati li nafsihi min aysu la yusru wa husnul xuluqi rubbama wa salaha ma la yuaddu wala yuxsa min xasanaati wal ibadat mu nekkit ku tabee nekk na ku yiw nekk itam na ku ragal suñu borom moom ma Massamba Mbacke loolu itam na tax nañu baree baree bare bari ci mag ñi nag tudde nañ ko doom ndax ma Massamba mel na sëriñ ma Massamba Mbacke ñu man cee ràññe sëriñ Balla Coro moom Mamor Anta Sali Mbacke di magam itam tudde na ko doom ndax sëriñ Bàcc Mbacke bu sëriñ Balla Coro mi ngi fi sëriñ Abdul Karim Touré nekkoon wólle réew Cheikh Massamba Mbacke bokkoon itam ci mag ñi toppoon ku Xaadim tudde na Cheikh Massamba Mbacke doom sëriñ Moodu Xabbaan Mbacke bu sëriñ Mandumbe Mbacke tudde na sëriñ Massamba Mbacke doom sëriñ Moustapha Bachiru Mbacke moom Cheikh Mamadul Bachir Mbacke moom Xaadim Rasul tudde na Cheikh Massamba Mbacke doom sëriñ Mor Sey Lampum Njàmbur bokkoon itim ci jàmbaar yi toppoon ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasul nekkoon itim wólle réew ma Massamba Mbacke tudde na ma Massamba Mbacke doom sëriñ Alsey Njaay bu Daaru Njaay bokk itim ci jàmbaar yi toppoon ko baax ki sëriñ Touba Seexul Xaadim tudde na Cheikh Massamba Mbacke doom sëriñ Aline Diouf la Mbaay bokk itam ci jàmbaar yi toppoon ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul itam tudde na ko doom sëriñ Mor Daaro Njaay bokk ci jàmbaar yi toppoon ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul itam tudde na ko doom sëriñ Xamsatu loo di rakkam bokk itam ci jàmbaar yi toppoon ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul itam tudde na ko doom sëriñ Ibrahima loo itam di rakkam bokk itam ci jàmbaar yi toppoon ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul itam tudde na ko doom ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ci mag ñi Cheikh Massamba Mbàkke bépp mag nag wala réem nga woon caatum Maam Mor Anta Sali Mbàkke lañ ko doon xoolee ak cër bi ko sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul joxoon ci yoon wi bari na itim nag ay tur yuñ koy wooye moom Cheikh Massamba Mbacke am na ay turandoom yu ñuy wooye Massamba am na ay turandoom yu ñuy wooye Bàcc bari na itim ci ay ndoom Cheikh lañ leen di wooye ñaari Cheikh moo gis ci njabootu Serigne Massamba Mbacke ma Massamba Mbacke lañ la tuddee wala ma sàmba Mbacke lañ ko tuddee doomu soxna Issa Diop ja ak Mamor Anta Sali Mbacke rakki Seexul Xadim ja mi ngi génn àdduna ci atum 1942 ci tournée nag bu mu doon def nag ci biir réew mi ndax magam Serigne Touba Bamba Mbàkke wër taalibe yi kenn ku ne fa nga nekk ma fekk la fa nemmeeku la nag man la war waaye nag jot gi laa amul ndax nag damaa nekk nag ci ay loxo waaye nag maa ngi lay sas nag nga di ko def loolu itam nag taxoon na nag ma sàmba Mbàkke at mu jot nag dana wër nag bi réew mi màggal nag ndigalul magam loolu Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim ci tournée nag bu mu doon amal nag ngir màggal nag ndigalul magam jooju Xaadim Rasuul ci tournée boobu nag la ko accident dale ci accident boobu nag ci la génnee àdduna moom Sëriñ Massamba Mbàkke nag mi ngi génn àdduna bisub wi nag di weeru rajab ci atum 1361 ci gàddaay gi ci hôpital régional nag bu Kaolack booba nag ma nga doon seeti nag taalibeem bu ñuy wax sëriñ Madiang Guèye ci dëkk bii ñuy wax kër Madiang Guèye ci suuf si nag di Kaolack ginnaaw nag bu mu jógee Kaolack nag doon dem nag ci dëkk bi nag di kër Madiang Guèye watiiru fas bi nga xam ne nii nag moom la Cheikh Massamba Mbacke duggoon fas wa nag moom moo tiit ginnaaw bu fas wa tiitee nag la balankaar ba nag laal kii di Cheikh Massamba la Cheikh Massamba Mbacke nag jëlee ay gaañu-gaañu ginnaaw buñ ko yóbboo hôpital bu Kaolack nag ci la génn àdduna mu génn àdduna alxemes bi mu dëppoo woon ak juróom-ñeenti fan ci weeru rajab ci atum 1361 ci gàddaay gi alxemes juróom-ñeenti fan ci weer wi nag di weeru rajab ci atum 1361 ci gàddaay gi dëppoog muy jeudi 23 juillet 1942 jeudi 23 juillet 1942 ci hôpital régional bu Kaolack ñu jëlee ko Kaolack nag indi ko ci dëkk bu sell bii nag di Touba doomam ma Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke moo ko jullee ñu jébbal ko boroomam ci armeer yu mag yi Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke nag mii doomam seedeel ko nag lu am solo wax ne Baye Massamba mooy mooy gor ndax lii ko dal kat man mii nag la waroon a dal ginnaaw bu mu génnee àdduna ci atum 1942 kii di cheikh mamadul faadal mbàkke defaloon na nag am marché nag waajuram cheikh masamba mbàkke mbàkke nag nekkoon na nag ku tabee nekkoon na itim nag ku yiw nekkoon na itim nag ku mën a joxe lim amoon nag di wërsëgam ku ko daa séddale nag doomu aadama la ba tax na itim nag doomu aadama itim nag daanañ def nag ay délégation nag ñëw nag di seet si cheikh masamba ku ne soo masaa ñëw nag yitte ba la fi indi nag Cheikh Massamba Mbacke dana la ko fajal lu yaatoo yaatu daal ma mu dul Fadal Mbacke wax ginnaaw nag làqug nag Cheikh Massamba Mbacke Massamba kaana mufiidul mustafiidu wa mu munji mustaxiisu ida mannaasu xat qaxatu talfa alcufaatu wafuudan cinda maxdarihi laa farqa bayna zawi alqurba wa man shaxatu taraahum caakifiina xawlahu wahum lima sayarmi lahum kaannahum rubitu laa yabraxuuna ladayhi xawman abada multaxitiina cataaya minhu tassaqatu yucta aljazila bila mannin wala sa'amin laa huwa munqabidun bal huwa mun منبسط رحب الفناء جميع الناس يألفهم إنهم فرادى ومثنى أو هم اختلط حامي الزمار وفالعهد حافظه كأن هذا الورى في كفه انضبط من الأحاديث هذا الشيخ يجمعها في جنة الخلد مغبوطا ويغتبط ثم صلاة بتسليم يقارنها على النبي ومن في سلكهم inqaratu cheikh moussa ka bokk itam ci jàmbaar yi toppoon ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasul dafal na ko itam nag am marsiya bu yaatoo yaatu ñu teewlu ko bismillahi werekaanu ban ba njàmmee ngi deeti joow pakem cëbal ba ku lab ci géej mool ya di xeeñ sa mboor ma ku dee ci jéeri a sange njoor ma bambaa di géej murit ya ñoo di jën ya lu dee ci géej loola du muurum tan ya murit du gis mu nakkiir ak nakkiira yi waxa biire xam ko doy na ngóora njàmmee di yi xuus ci géeji ban ba di wane yoon wa gaaye jàlle pom ba ndax ku mënul ndox te taxaw fa tan ba lee pake ñëw jàlle la fab sa yan ba xam leen ne gaaya seeni ruudu faatu seeni yaram durapp ñoo ko yaatu soo ko gëmul jàngal wala taqooloo ba dem ci axyaawu ndekoon nga wóolu te gaa yu baax ya xamle leen te way leen dana waral seeni saxaaba roy leen budul woon ak ñiy bind ngiri raaf na budul woon ak ñi tari xam-xam daay kon nag ñiy yeete gaa yi yandoor dootuñu yeewu abadan ba xëy buur tuxal bukaa u teg ala saadaati laban ba wax ca way wa bul sakaati xeraw leen te ñëw nu xawtoo ngaaka bajjo ba daanu na ca digg géej ga wallaay keroog bam ne jirim fa kawlax géej gaa nga ànd dex ga léppi falaax ma marsiyaati say xanaa ma zanba tabba fi daa roy roy lu sayxi ban ba yaa malakul mawti la si tumiitu bi isni man yuyi wala yamuutu yow ba nga yóbboo xaadim rasuuli teewoon nga dég fi caat nu bañ suuli waaye la yóbbu xaadimu rasuuli du bàyyi kenn ayna abul batuuni wa kullu nafsil makkataa mbag mbàkke zaayixatul mawti bi xayri sakki bakkan du yées ab dig du weesu ab dig wàllu yu yaag buur yaag ñadee fi wax dëgg ku àgg cib gaar dal sanni sànni paasam ñu dal di koy teeru mu fat bagaasam bu dee jullit ñu teeru jox jinaana bu dee leneen ñu tëru jox niiraana cay yow malaakam dee mi nag nu fàtte ndax nu lëggéeyal ban ba dee day bette yaa nee ko roccuru ci seex masamba yow malakal mawti mu wuj bamba ban ba daa ko woo fii laylatil xamiisi weeru rajab la wuy ji liru muusi malaayika ak jinneeg rijaalul xay di teeru ruuga doonal xay bi war na pakeem teral ko fil jinaani guddig juróom ñenanta lay fanaani ama unay sasin calaa ko taarix la bàcc mbakke caatra ñaanee kawla néeg bañ ko tabbaloon atum nattoom ba la ruuga wuy ji may borom wa man yuhaajir fi sabilillahi mbóot maa ko yóbbu foofa duunallahi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 keroog ba muy nuyoog sayxi ban ba rilwaanti jël na ko mu su yóneen ba xam naa keroog ba mu rañaanee kawlax murit ya yépp seeni ruu xaw naa la xam naa keroog seex ya newoon barsax seen ruu ya yépp dajaloo ne suq xam naa keroog jigéeni xuurul ayni mbég nañu mbég moo xam ne doonil may ni keroog rijaal yi woon fa xabruy tuuba xam nañu gan gu tedd ciy bis boobaa keroog la bàcc jot ca madul ijiri jamu bindoon génne ca kaddul ajiri wéetal na lislaami yi kenn lu rëy buur na ci mbaaram waa ji ronga ñi lislaam yol na tey fa tuuba jumaaja yikkat na ci baatin booba uxal bukaa u loolu moo ma jooyloo may jooy ala saadaati ñoom laa doyloo wuy jooy la leen ma caat ma semmal taaw ya sëriñ ma samba mbakke mool baak maaw ya jooy naa ci aama wam sa sin sayxi bamba xaw suba doon liggéey katab yonen ba jooy naa ci aama tam sa sin seex ibra faal ba leeraloon adduna oxo uxra jooy naa fi saa na jaay ci xaama an sasin seex moodu ndumbe booba tab du dellu si toor na tuur na samay rongañ ci xaama an sasin tuur na samay rongañ ci xaama sasin ngir siidi anta mbàkke maa ngi bis bisi ma jooy fi ren jii ci xatam unay sasin sëriñ masamba mbàkke duniyaa la fase abduna mbas jeexal nga sangi mbàkke bawoo fi taaw bawoo fi caat yaa manki yellonte yow nga ba fi seex masamba nu di ko roy ta ko xoolee ban ba ku deeti roy roy bindu sëriñ bu mag ba di tomb tombam ya gannaaw ma sàmba ma wax la xar baaxi sëriñ ma sàmba yoo xam ne nii nekkul ci kudul seex bamba weeru barax lu ci nit ak juróom ñaar di alxames la juddu moo doyug waar bamba ko tuddee seex ma sàmba anta moo jàngaloon baayam ba màmmoor anta seex bamba wax na ne keroog may baayam fii baatinin ngir yetti yëf ci yaayam keroog ndeyam boole na yaari mbubbam jébbal sëriñ tubaa def boroomam mu dellu jébbalaat ko seex ma sàmba sàmba ngir feddalee ko njëbbal ak baayam ba keroog ndayam wax na fa wax joo xam ne sañeefu ko biral bi doonil may ni ku weddi lii nga dem laaj ko sëriñ ndaam moo ma ko wax moo sant woon keroog daam keroog la bàmb ma sa tiim ci duniyaa ba na mu wuy ji yàlla raw na mbër yaa lelam ba mooy biddiw ba woon ca laar ba taarix ba aama an sasin mooy taar ba leeruk mbiram juddoom nga am na firnde noorul jalaali moo caatay gaynde bambaa ko tudd moo ko yor ba mu sol fandaam bam gimme cheikh abdourahman moo ko sol quraanu ci at yu néew la raw soo daanu daarul alim moo di kër sëriñ ndaam la binde ay kaamil ñu yët ko maam ndaam foofee la jànge xam-xamu riwaaya ba bamba ñëw géej far ko sol diraaya keroog ba bambay ñëw fa daarul manaan fekk na kaamilam ba xak si rahmaan ca mooma at lañ fa yabal si mbaaxaan ba mu ñëwee fekkul fa waajuy caaxaan keroog la seex ma sàmba waar magam ja moor isa jóob mu daldi di gëm magam ca mooma way gannaaru yaaram yay sor xolli sa gan yay waaru foofe la bàcc duggee yoonu tarbiya ak tarxiya ngiri tasfiya bambaan ko tarbiya diggante gànnaar ak i jolof seex bàcc moo doy waar mos sol aw dalla mooy daymaani mbaa mukki day roy naari waa daymaani sëqal kawar booleeg dara yi may ak laxasaay la boole woon ba xëy luus dadaa durus kaamil ya tey yër di bind taalif yay wasal kaamil ya mos la toog mboolem lu bamba taalif bind na lépp kooko moo nii la tëdde moom Cheikh Massamba Mbacke ci atum 1942 ba atum 1958 taawam ba sëriñ Moodu May moo njëkk a nekk nag ab xalifaam ñaareelu xalifa Cheikh Massamba Mbacke mooy sëriñ Mouhamadan Jobbe moo ko wuutu nag ci atum 1958 ba atum 1996 ñetteelu xalifa Cheikh Massamba Mbacke mooy sëriñ Saalihu Mbacke Massamba moo ko wuutu nag ci atum 1996 ba 2009 ñeenteelu xalifa sëriñ Massamba Mbacke mooy sëriñ Abdou Baaxe Mbacke Massamba moo ko wuutu ci 2009 2009 ba 2013 juróomeelu xalifa sëriñ Masamba Mbàkke mooy sëriñ Moustapha Mbàkke Masamba moo fi nekk nag 2013 nag ba nëgëni ñu koy ñaanal na suñ boroom guddal aw fanam nag te wéral ay cëram te yàggal ko nag ci toogaayu waajuram wii nag di Cheikh Masamba mbakke ak mbooleem nag ay rakkam ak mbooleem nag seeni doom ak mbooleem itam nag taalibéy Cheikh Masamba Mbàkke ak soppey sëriñ Masamba Mbàkke yi sëriñ Masamba Mbàkke nag am na bis nag bu buñ koy fàttaliku muy ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci weer wi nag di weeru Saxbaan di bis bi nga xam ne nii ci la feeñoon ja Aliou Mbàkke Masamba nekkoon itam ñetteelu xalifa sëriñ Masamba Mbàkke moo dajale woon nag mbooleem njabootuk sëriñ Masamba Mbàkke gi wax na itam nag nañuy fàttaliku seen waajuro Cheikh Masamba Mbàkke ci atum 2002 nag lañ tàmbali màggal gi ci atum 2002 ba nëga ni nag ñi ngi màggalal sëriñ Masamba Mbàkke ci bëccëgu ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru Shahbaan di bis bi nga xam ne nii ci la feeñoon jamono kon lii nag mooy sababu màggaluk Cheikh Masamba Mbàkke ñu koy amale itam ci suuf sii nag mu féete woon nag di mbal nekk itam nag ci marché Ocass sëriñ Masamba Mbàkke itam nag am na ay journée culturelle Cheikh Massamba Mbacke waaye màggal gi gën a wér daal ci Cheikh Massamba Mbacke mooy bis bi mu feeñoon jamono bi ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru Saxbaan ñuy ñaan ca caatum Maamoor Anta Sali Mbacke ba kañ faya maamam ja di sëriñ Massamba Bàcc Anta Ceebo yal nañu ko suñ boroom fayal te yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem te wanale koog nag magam ja Xaadim Rasuul ak waa